koor démb nag Mbagnick ba mu yëkkatee ay kàddu di wax am na loo xam ne mooy cinq fekk na ko ca naroon nañ ko rey rey laa la wax Mbagnick nañu déglu élément bi bu fekkee Pierre am nga ko ñu teg élément bi tuuti daal di ñëw ci Mbagnick après élément bi nan la ay ca donc xam ngeen ne fédération xaar la salaamaaleykum man Lambe Ndiaye eh, la Mbagnick Ndiaye man maay ministre des sports bi man de wax dëgg yàlla bi may dem ci affaire fédération bi en tant que dama yaakaaroon ne damay dem rek pour présider wax sama xalaat waaye ñett ñii laa bëgg Macky Sall jàpp seen tur Amadou kan Abdoulaye Traoré bu yëgoo Amadou kan bu nawetam ak Abdoulaye Sow bu fédération sama tur bii nga xam ne Mbagnick laa tudd dañ ma naroon bëggee dañ ma naroon door rythme ba ma nekk di bëggee ndax maa ngi dégg kenn ki di Abdoulaye Traoré nga xam ne moo nekk yëgoo naan nañ ko bëggee. ki naan ko mbañik bi kay dañ koy def dañ koy dindi def ko bëgg a dootul doon mbañik Ablaye sew naan nañ ko riij waaye man kaay leen ngeen xool li ma wax ak niñ ma naroon def xoolal leen seen bopp ngeen xam ne ministre waruñu koo def nii xool leen déglu leen. c'est un point noir au niveau de l'équipe dirigeante actuelle. waaw. ça je le dis et je le dis haut et li ma wax dafa leer. nous ne pouvons plus continuer à financer le football. au moment où d'autres disciplines nous apportent des satisfactions et que le football nous apporte des désespoirs. li ma wax dafa leer donc duñ joxe xaalis ci équipe boo xam ne du indi dara loolu li laa wax ne football bi indi lu ñu dara te liñ ciy def dafa bëri. léegi déglu leen. gis nga xool ma maa ngi ni way ñu ngi may ñu may bëgg a bëgg gis nga xool ko dégg nga xame naa la yow dinaa la dàq ndekete ah yow ci nga <laughs> yaa ngi woon sama bureau naan li la dal ma sa ndekete ci nga bokk gis nga dompet bi gis nga ñu ngi may dompet gis nga gis nga mu may dompet nga mu may dompet dagg ko foofu ma wax la nan la demee nag ci histoire bi daggal foofu yemale ko foofu ma ñëw li ma wax dafa leer dama ne attelé ñu yéen waa Sénégal man ma ñi Njaay dama ne football bi li ñu ciy dugal xaalis te indi lu ñu dara dañu koy dakkal bu fekkee ne dañu koy continuer ndax li basket bi di indi volleyball bi di indi handball bi di ko indi karaté judo bi ba pare ñu sewal leen deful leen dara football bi indiwul tous te dañu sonn ci joxe loolu de laa wax ndekete ñoom mer nañu toogaale ko bi may tàggu pour ñibbi gis nga sama faar bi yëpp dañ koo kaata yëpp dañ koo doppet doppet doppet doppet ba dem ba madame ci boppam gis nga madame ci boppam moo ko doon diw dañu maa kaata kaata may wax nag procureur de la bi ndekete doppet armala la nañu ko légaliser tel nit ki di ko doppet di ko kaata arme ndax paaka ñu jam ko nga ne wuyaa yooyu ñëpp xam ne paaka la sax moo tane doppet bi Ablaye Traoré Bambara bi téema di ma doppet di ma kaata keneen ki ma bëggaj ministre boo xam ne ay garde corps ak gendarme sax faale wuñ ko may wax ministre Abdoul Mbaye na ma jox ay ninza ay ninza laa bëgg ay ay ay sawle ay ñoo xam ne ku parce que ñii dañ ma nar a bëgg a de nee nañu bii dañ koy bëgg a kenn ki maa ngi dégg mu naan yaa moom def leng mu ne ko waaw mu ne ma dañ la la ndel ba nga leng ndel ndef leng ndeg leng nee nañ dinañ ma dinañ ndel ba ma lang yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla yeneen sport yi tax ma waxoon ko kon nag mbër yi jog leen karatéka yi jog leen judoka yi jog leen ndax yéen laa doon liggéeyal kat ñoom ñu mere ma footballeur yi nee nañ ma dinañ ma bëgg ay buñ ma bëggee jee bu buñ ma bëggee jee ci dëkk bi xool leen ma ni ma tuutee rek ak ni ma yàlla bindee ma tuuti ne yoo seewrut man bañ naa ko ba dama makke vitamine ndax wax ju bëri ak yéeg ak gis nga violence bu ñuy wax ci lamba ji amul ci lamba ji mu ngi ci football bi ñetti ñii ñooy violence yi ci dëkk bi Abdoulaye Traoré Yogo violence bu mag la ak ki nga xam ne moom mooy Ablaye Sow kooku moom maa ngi a li ñuy ëppante sax bëriwul waaye ki ma bett dëkk mooy Amadou Kan Amadou Kan moom ma bett nee na daf may bëgget nee na man lay bëgget man ma ñig man lay bëgget man mbañik man lay bëggee man man lay bëggee man man la nar a bëggee <laughs> hey yàlla léegi nag mu ngi ni da ngay wax sa xalaat ñu teel a dañ maa dompeta dompeta dompeta dompeta kaata kaata kaata xosi gaddi am na koo xam ne dal yi la jël di ma bulee rek mënu maa daw ndax ministre laa waaye bu yàggoon tuuti ma ne wooy wooy wooy sama ndey